mbokk yi ñu seetaan ci seen site 28 pro ñu ngi am mbégte di leen nuyu di leen ziar bu baax a baax ànd ak yéen ci seen émission ganu campagne élection législative 2022 mbokk yi sunu numéro tey mi ngi ñëw fii ci Mbàkke di dalal doomu Mbàkke di dalal koo xam ni maanaam ay way wayjuram yor nañ fi ay ndombay tànk ci wàllu politique tamit euh, moom nag tey euh, dafa ñëw ci kasketu politicien bi nga xam ne nii euh, dafa sóobu woon lu yàgg waaye nag très rarement lañ ko doon gis muy waxtaan ak nit ñi ci ay débat Mamadou Thiathio Mbaye lañ koy wax moom moo nekk mbokk yi sunu gan dan koy bàyyi mu nuyoog internautes yi bu ko defee ñu jublu ci li nga xam ne moom mooy parcours yeeg laaj yi ak fi nga xam ne foofu la ñu fas yéene yeggale émission bi Thiathio ñu ngi lay nuyu. bon asalaamaaleykum sama grand Sidi maa ngi lay nuyu di la ziar di la wax ni maa ngi kontaan ci opportunité bi ñu may à travers site 28 pro pour ñu waxtaanee politique surtout département bi ñu bokk mais balaa lool it dañuy nuyoo nuyu murit ndax ñu nit ay taalibe lañ di nuyu xalif général di murit di ko ñaanal fanam gudd mu yàgg taxawaay bi yàgg lool ndax day sago yoon wi di nuyu kër gi ñu bokk. muy sëriñ kër sëriñ Saliou di fa jaare di nuyu sëriñ Cheikh mi sunu wasi la di ko ñaan aw fanam gudd di nuyu dëkk bi ñu nekk muy Mbàkke nga xam dafa am borom muy xalifa Mamour jaara di nuyu sëñ sëñ sëñ Ismaïla mi fi wutu xalif bi fi bàyyi ko bu yàggul di ko ñaaral moom yàlla yokk leer di ñaanal sëñ Ismaïla ah, yàlla bàyyi ko fi di ñaanal xalif général des Baye Fall sëñ Cheikh Jëmm di ñaanal xalif maam Cheikh Anta di ñaanal képp kilifa diine sëñ Moustapha Ndiaye mi nga xam ne ñun moo ñu boot fii ñu dëkk di suñu kilifa yor lépp yi dëkk bi moom it di ko ñaanal fanam gudd lool di ñaanal it waajur yàlla may leen gudd fan wér yaram ak taxawaay bu yàgg sunu kanam ñu yàgg ñoo gunge lool di ñaanal bépp waajur di ñaanal it son excellence le président de la république Macky Sall nga xamante moom. ñaanal ko ñaanal ko rek moo ñu war moo ñu war ci taalibe moo ñu war ci jàppale kuñ koy jàppale nag gis nañ li mu yéene réew mi di ñaanal bépp autorité bu nekk ci Mbàkke ak foo mun ti bokk waaye rawatina nag ñu bokk ci mouvance présidentielle dont le maire directeur général Galaba di ko nuyu de passage di nuyu ñëpp di ñaan élection yi ñu jëm yàlla may ñu ci ndam noonu daal si laa nuyoo. jërëjëf mbokk yi xam naa ne euh, ci euh, loolu tamit dana gën a leeral euh, ci relation yi nga xam ne am na ko fi ak jeunesse bu Mbàkke ñoom tamit xam naa ne dañ yaa ngi leen de passage nuy mboolem askanu Mbàkke yëpp Caacoo Mbay mooy kan. bon Sidi Caacoo moom xam naa ne internet yi laay mu ñoom laay présenté waat maay kan ñi ma xamul mais yow xam nga ma ndax yaa ma yar yaakaar naa ni bi may xale bi may gën a am ay quinze ans seize ans bëri na loo daan ah, boobu yaa ngi doon yëngu ci événementiel bëri na loo daan organisé peut-être ñu bëri buñ ma xamee yow yaa tax donc dañ la ciy sant donc boo ma demee ba toll fii nga may mayaat opportunité bi yow dañ lay sant di la wax nii bëri na ñu jaar say loxo yow donc référence nga ci dëkk bi ndax bu ñu la xamee ba léegi dara ñaaw ci man nag jeune xale laa comme jeune yëpp bu juddoo ci dëkk bi yaroo fi jàngee fi. Euh, jàngee fi sama cycle secondaire ba bi may def seconde ci laa dem Diourbel def fa amee fa bac G génn à l'étranger dem jàngi ñëwaat liggéey doon nongo doon taalibe maaseeg ñëpp ànd ak jeunesse bi gëm benn politique nag muy politique Macky Sall may may xamalaat nit ñi rek wax naa ko may mais la répétition elle est pédagogique ma koy répété waat Macky Sall ànduma ak moom bi mu faloo avant moo faloo la moom ak moom 2009 mais nag mbir am na fu muy toll. yéen ñun ñu ko moomoon day bu naree yàqu day jot ñu ñëwaat taxaw ni mbir mii kat sunu mbir la nañ taxaw aar ko protéger ko foofu lañ nekk foofu lañ toll. loolu en grosso modo daal ndongo laa lu nekk ci réew mi rek bëgg lu baax di moytu lu bon di góorgóorlu ak sama kéemtulaay kàttan ba lépp lu ma jàpp ne war na moo ko defee nit ñi danañ ci gis njariñ wala moo mën cee jàppale askan wi ma gën leen cee jàppale noonu foofu daal laa yemagum pour le l'instant. Mm-hmm. waaw. Euh, mbokk yi xam naa li mu bëggut a wax ci biir présentation bi tamit euh, moom mooy doomu ajaratu Fatou Néné Ndiaye madame mbay lañ ko gën a xamee di haut conseiller des collectivités territoriales. Euh, di responsable politique APR bu nekk fii ci Mbàkke waaye di doomi ki nga xam ne moom mooy Serigne Mbaye euh, di hôtelier bu mag boo xam ne tamit euh, mi ngi ci réew mi moom tamit di fi def loo xam ne maanaam liggéey bu am solo la loolu ci biir xam naa daf ko fàtte woon wala boog daf ko buggut wax xam naa ni waaye ñun yeggale nan ko ko comme li mu wax nag dëgg la naam bi muy gën a nekk xale ñu ngi nekkoon ci wetam di ànd ak moom Euh, di ko épaulé dafa wax dëgg yàlla di ko assister tamit ci lu bëri ci ay manifestation boppam sax yoo xam ne bu ko dee def dañu ci woo ñu teg ci loxo kon loolu ak reconnaissance boobu noonu tamit ñu ngi la ci euh, félicité di la ci jaajëfal tamit bu baax a baax te xam ne tamit sa jur moom moo ñu ibbiloon buntam boole maa woon say mag ma àndoon ak ñoom tamit ci àndin bu rafet eh, di leen nuyu de passage muy ki nga xam ne moom mooy alwa waaye tamit di nuyu ki nga xam ne tamit moom mooy antaali ñoom ñëpp eh, vraiment suma grand Bokar jouf eh, maa ngi tey maa ngi nuyu moom tamit bu baax caaco mais politique bi nga xam ne maanaam dugg nga ko ñu fàttali mbokk yi politique bi dafa mel ne kon su ma ko doon wax danga koo nàmp waaw politique mën nañ ne dama ko nàmp ndax sama papa socialiste la woon de suus jamono ay UGPS moom boo toogeen moo waxtaan sax waxtaan yooyu la lay wax donc lu ñu nàmp la mais buñ naan nàmp peut-être dañ naan nit lum nàmp mooy li jóge ci yaayam sama yaay nag du politicienne moom actrice de développement la kuy def ci social la peut-être loolu moo ko permettre tey mu dem ba dugg ci politique ba am ci nombal tànk bi nga wax sànq muy haute conseillère lu may bañ a wax parce que j'en suis fier mais comme que dama ne caacoo moom kese tam caacoo moom madame Mbaye la ñuy wax que loolu boo ko waxul sax nit ñi xam ko waaw loolu moo tax donc luñ nàmp la te it luñ yàgg topp la luñ tarbiyu la it di ko jàng di ko xool nit ñi di xool di jàng nit ñi ba jàpp nañ ñi daal bu ñu yàlla dimbalee lépp luñ ci bëgg mën nañ ko ci am. waaw waaye yow it da wax sànq lu am solo ma koy ma de passage après bi nga nuyoo samay sœur muy le grand Bokar Diouf kooku tamit bokk nañ ñi ma forger. bokk na ci ñi ma forger ndax bi may xale ba léegi ci keppaaram laa yoroo koo xam xam ni grand bu dynamique la maa ngi koy nuyu moom au passage. suñu euh, mbokk yi kon laaj bi moom mooy ñu ngi ci actualité boo xam ne nii campagne la ñu nekk campagne législative euh, da nga da nga gën a sëwbu ci législative par rapport ak campagne yi fi jot weesu yëpp lan moo waral loolu. bon c'est normal. parce que xam nga dañuy nekk ci réew moo xamante ni actuellement coow li dafa bëri torop te ku xam xam ni a euh, li élection législative majorité à l'Assemblée nationale mooy mën a permettre exécutif bi mu mën a gouverner confortablement donc bu ñu demee ba am réew nag ay nit di wax naan. il faut cohabitation am dafay jot ñi li ma la wax sànq moo ñun ñu nga xamante ni xam nañ ku ñu fal te wóolu nañ politique am xam nañ it njariñ li mu amal Sénégal ak fi mu ko jëmee muy son excellence le président de la république kenn mënut a mënoo bëgg ginaar bañu nenam on ne peut pas gouverner un pays sans une majorité à l'Assemblée nationale mënut a ne tey it donte xam nañ ni loolu mun ta ne sax tey ñoom ñu koy wax xam nañ ni mënuñoo am cohabitation boobu mais moo tax ñun it ñun ñi nga xamante ni mbir mi suñu yëf la ñun ni dañuy jug. wax ak nit ñi ba ñoom wax jooju sax ne serait-ce que pour nit ñi dégg ko ci nopp ñu xam ne wax jooju du luy mën a ne depuis dès le premier jour bi ñu ne am na ay intercoalition nangam sàng laa njëkk a bind article ma ne lii moom du lu jëm fenn parce que cohabitation Sénégal pareeguñ pour adopter ko fi déjà day ya day yéexal liggéeyu réew mi te ñoom lan lañ ci jublu boolekee institution yi donc nag ñun ñi nga xamante ni ay ndaw lañ xam lii liy njariñu politique xam lii njariñu développement soxla suñu dëkk bii di Mbàkke mu émerger bëgguñ ko ko bloqué ndax instant yi bu ñu fi xëyoon tey jii ñu ni mara deytaal yi li nga xamante ni c'est xalaatuñ ko sax c'est impassable muy cohabitation am fi mais lan lay jariñ buñ nee nañ yóbbu lii ca dëkk ba opposition bi taxaw ni noo nañ defal lii dëkk ñu ni non pour lan bloqué politique kii bi projet politique exécutif bi te loolu gis nañ amul njariñ ci réew day tardeel développement te fii Sénégal toll ci jëm ci kanam ci ay infrastructure wax dëgg yàlla ku yokkul da ngaa war ku waaj ku mënta yokk da ngaa war a noppi dañoo war a ñaanal son excellence bàyyi ko mu am majorité bu confortable assise man ma sax ay majorité yu ndaw yi élection yi victoire bi ñu war a am moo war a gën bu 2017 parce que dañoo war a wane ni en 2023 y aura le pétrole y gaz Sénégal dafa war a stable investisseurs yi mun a ñëw ñu ni am pays bu paisible président kon ne di inauguré mais lan moo tax boobu ngeen ne yéen ba euh, ci sa biir wax danga ko wax nga ne ba intercoalition amee euh, taxawee nga ne lii du jëm kër te ñoom ñu wóolu ci li nga xam ne moom la ñu téye fi ne nii ñoom am nañ base bu mag ah, man base boobu noonu nga xam ne moom lañ téye lan moo tax yéen gëmu leen ne maanaam lii dana mën a wëy. xam nga yàqkat ku jug pour yàq da koy jaral chaque jour sax ñoom ñu munta ànd buñ nee ba ay noon di ànd ci dara nga xam ne ñooñu yàq leen tax a jug parce que bu ñu xoolee wàllu yeewi 2016 ba léegi mosuñu ànd ci dara Ablaye Wade fusillé nañ ko fi def nañ ko fi lu ne donc ñooñu bu ñu demee ba ne tey dañuy toog waxtaan sur la sur une table di bokk dara wala di nasandoo di noccandoo ak li fi jot a xew ci seen investiture yi yëpp ñiy gedd fii ñiy mer fii ñu jël ah, des des des ah, comment dirais des militants de de de comment dirais des militants du PDS des premières heures éliminer leen dugal au profit de ñeneen yooyu yëpp xew fi nga xam ni ñii yàq leen tax a jóg yàq googu nag. day impacté ci réew mi te lu war a impacté ci réew mi ñun waruñ ko seetaan parce que bu boobaa ñun ñooy payer les pots cassés ñun askan wi ndax day bloqué politique gu Macky Sall te luy bloqué politique gu exécutif képp kuy sénégalais xam ne yow lii sa njariñ la waroon koo war nga xeex foofu ñun lañ ci toll foofu laa gëm ni fa la fi waa Mbàkke toll nag foofu la fi askan wi lu ëpp ci sénégalais yi toll te it bu ñu xoolee par rapport ak les locales ñoom ñiy wax cohabitation même boo tëgee chiffres yi mënta ne loolu mooy liy dëgg. parce que déjà loolu la ñu local yi trente huit département léegi defal coefficient trente huit département léegi nga xool lañ war la ñu war a amaat liste nationale ak trente huit département yi nga ñëwoon tam leer la ne dana am département yu ci dolli kuwaat ci législative yi nan la ay cohabitation mën a amee kon ñoom dañuy nax askan wi léegi nag la fait que nag message boobu sax di jàll ça nous mal ñu Sénégal war a Sénégalais war a toog ak fii réew mi toll ci développement ñu war a mun a toog naan dañuy xalaat cohabitation donc daal loolu c'est un faux débat parce que tamit ce n'est que des allées de circonstances yu véhiculer seen message donte nag politique la ku ne am nga droit campagne la la neex dañ leen bàyyi ñu campagne ñu ñu campagne xamal askan wi ni li ñuy wax lépp parce que boo xoolee ñoom ñu waxi bilan bilan matériel Macky Sall moom kuy campagne ak koo mënti doon ci ay autorité am ngay jaar ci ay lampam ngay meetingee ci ay taleem ngay jaar ay investi ay investissement am rek ci ngay dox. donc mais li ñu yëkkati nag rëy na li askan wi ñoom li ñuy campagne moom mooy dund gu cher gi moom la ñuy campagne te yëg ngeen yéen ñëpp sax réew mi sax yëpp yëg nañ ne dund gi cher. mais nga foofu laa bëggoon a ñëw nga dund gu cher gi du président sa gëm naa ne yëg na ko parce que nag dafa am lu fi jaar. li ma li ma wax naa ko fan yee paas dama koy waxaat ma ne gis nga bi ñu jugee présidentielle deux mille dix-neuf bu fi corona jaarutoon crise Ukraine guerre Ukraine Russie bi jaaru fi. actuellement nii opposition du am Sénégal kenn du campagne donc au moins buntu boobu prondol boobu mooy cat loolu fi jot a jaar moo tax sax ñu am lu ñu wax mais loolu nañ xam dara gis nga bu ñu xoolee tuuti en deux mille dix neuf taux de croissance bi presque àggoon na sept pour cent normalement li ñu projeté woon deux mille vingt deux mooy taux de croissance à deux chiffres kon fi may waxee ak nii bu fi li ma la wax jaarutoon actuellement ñoo ngi naan taux de croissance dix pour cent donc muy réew mu mu nekk en voie de développement donte lépp mënut a jagandoo am en même temps Paris n'est pas devenu Paris en un seul jour dañuy defar donc ñoom loolu noonu ñuy campagne amaana dëgg la dundu gi métti na c'est cher mais c'est partout dans le monde litre d'huile bi jar fi au moins deux mille mille trois cent boo demee en France ñu ngi la koy jaay cinq euros six euros nga dem Allemagne ñu ngi la koy jaay quatre euros nga dem Italie yooyu la fay jar c'est quatre mais sous bi kat yomb non sur non non ñuy wax loolu dañoo xamul sous région bi lépp fa cher même essence bi wax fii la gën a yomb que a yomb waaw mais xam nga non nit ñi di ko indi xam dem Gambie kasaali actuellement nii may wax ak yow nii Gambie ak Mauritanie diw mënu faa gën a yomb Sénégal non non non nii laa la wax loolu ñoom ñoom ñoo koy wax rek naan fii la gën a yomb ak nangam sangam parce que loolu yàgg nañ ko dégg boo xoolee baram baromètre yi ñu ngi ci internet bi xoole essence Sénégal fi mu toll nii gasoil yokk fi essence rek lañ yokk par rapport ak yeneen yeneen dëkk yi demal Côte d'Ivoire demal yeneen dëkk yi demal Mali Mali gi ñu doon coow di demal nga xool litre essence ñaar la fay jar. moo gën a yomb Sénégal. non non mais par rapport ak ak ñoom crise bi lim leen indil liñ ci yokk ñun yokkuñ ko ci. Ah, mais bi nag jàppal ne maanaam li fi jaar di Covid bi fi bi mu fi jaaree crise bi mag Macky dafa génne alal ju bëri jox ko askan wi. waaw alal jooju noonu nga xam ne moom la jox askan wi est-ce que du gënul woon a rek mu yombal li nga xam ne moom mooy dundik moom la mu génne woon xaalis di ko maye wala di ko pasar pasare mais pour yow yenn yenn denrées de première nécessité yi lan moo tax ba léegi nii seen i prix yéegul mais mi ngi état mi ngi def ay effort am na lu bëri loo xam te ni ñi ngi koy jéem a subventionné état di subventionné mais xam nga tamit réew dafa am nu muy doxee il faut tamit ñun ñu comprendre loolu noonu xam métti bi amul nga bokk ak Macky amul nga génn APR wala dara parce que ñëpp ay chef de famille la ñëpp am ménage ñëpp ay dem ci boutique bi man mii xam na fi mu toll nii bi bi doon vingt litres bi mi ngi doon jar quinze mille actuellement il est mi ngi jar vingt cinq mille c'est cher on accepte mais gëm nañ ni ak avancé yi nga xam te négociations yi am nañ ko si trois à quatre mois lépp dana revenir à la normale. pour élection yi une baisse don parce que bu du lu ñuy campagner ndax réalité la loolu réalité continentale la mondiale même voire. prix yu cher réalité mondiale ñun ñëpp nañ ko xamee noonu noonu ko campagne da ngay wax lu la neex beneen bi tamit beneen bi bi opposition bi di xeex moom mooy tamit injustice maanaam jàpp na ne maanaam sawaay ni mu delloo justice bi dafa metti loolu tamit ñu ngi koy campagner te yéen xam ngeen ne maanaam tamit léeg-léeg day jalgati déet man bul nii yéen xam ngeen ah man de Sénégal ba mu juddoo ba léegi justice bu indépendant laa fi gis xam nga nag yoon boo nee yow boo xoolee Sénégal li ñuy euh, bu ñu xëyee tribunaux yi danañ am lu mat cent procès benn ci doon procès politique léegi cent procès yooyu yëpp quatre-vingt-dix-neuf yëpp nga ne yow juste na procès politique nga ne injustice loolu du yoon parce que réew yi dafa am ay institution am ay bànqaas amaana man yenn renseignements généraux yi information ba ñuy am ci nit wala la xew. man xaw ma ko ba ba tax may waxee neen li wala ma naan justice bu dalee sama kaw ma naan dafa am injustice maa ngi ñaan tamit loolu tamit bu dee tamit dafa am ci ñum daal erreur mënut a ñàkk parce que tamit ñi atte c'est sur les papiers ci la ñuy atte ci ay juge lañu ay mangam sànq peut-être mën naa bañ a considérer sax a politicien mu considérer une personne civile loolu lépp mais lu ñu war a waxtaanee la mais du jarul fët-fët jarul xuloo jarul xeex nañ xam ni bu dee cent quatre-vingt-quinze pour cent yëpp baax na parce que c' est des gens yoo xam ne ba ñuy jàng Macky Sall falawut les magistrats c' est des gens corrects que je am naa ci ay xarit am naa ci naaj naa ci ñoo xamante ni ay nit la ñoo xamante ni dañuy layoo seen bàmmeel ëllëg ay jullit axkan ñeneen ñi bokk ci leneen gëm loolu axkan di doxal dëgg te yàlla tax dëgg gi leen këyit yi may xam nga nag yoon këyit ci ay këyit la ay texte la ñun bind amaana yow lecture ba nga cee am ak kii lecture ba nga cee am mënut bokk parce que philosophiquement tamit passé la rek ndax chaque jour nga gis dara génn lu yoon génn rek yoon dàq na ko fee kon foofu loolu laa ciy wax nañ xam ni daal justice bii fi nekk 1960 ba léegi ay écoles yi même les même écoles yi ñooy former magistrats yi ñu ngi di àtte parfois nag mu jàng tey ñi naan amut yoon ñëpp koo ci tooñ tey ci yoon lay yóbbu fii kenn jëfalu sabab koo ci tooñ tey jii te tooñoon léegi opposant boo ci tooñoon yow siidi sa site bii sommation la lay yónnee bind la porter la plainte kon ah yoon boobu la yaakaar di kon buñ ñu amul yoon dañuy jàpp ne moom mooy dogal rek moo tax euh, mbokk yi seen euh, gan euh, Thiathio mbay la mbokk yi moom mu nekk seen gan campagne élection législative 2022 ñu dikk nag ci nga xam ne moom mooy sunu localité bii diggante Touba ak Mbacké nga xam ne 2012 ba léegi président Macky Sall musta gagné Touba ren de maanaam yéen a ngi gësam bu baax de lu ngeen di gësam noonu lu tax ngeen kii lu tax maanaam daal ngeen ngeen fippu daal. bon du ma ni sax fippu ndax yaakaar naa ni deux ne 2012 ba léegi ñi fi nekk mu mosuñoo relâché ñu ngi góor góorgóorloo chaque élection pour jox président ndam amaana nag contexte yi ren mënut a yem ak yooyu ndax it buñ jëlee élection législative bëgg naan ay deuxième tour présidentiel ak yooyu day gën a engagé dañu gën a ñaax na xanaa ñoom bu ñu noppi woon sax am ñun ñu off waaye boo nee il faut ñu gañ ko pour du nangam sangam pour présidentielle 2024 bu a campagne lu amul léegi nag ñun c'est notre devoir ñun ñi nga xam gëm nañu Macky Sall ñu wàcc sur le terrain informé juste et mooy lan élection législative lañ jëm du élection présidentielle pour président mun a gouverner il faut mu am majorité absolue major pas majorité absolue majorité écrasante confortable mun a toog assemblée ak politique bi mu bëggee gouverner réew mi mun koo dérouler ci ni mu ko bëggee parce que loolu la mbir mi loolu kese la il faut ñu véhiculer le message message bu baax bi am dul dara làqawut ci président moo soxla majorité pour mun a gouverner. gouverner waaye tamit pour laaj troisième mandat. non loolu moom question boobu. du man maa ciy tontu du keneen ndax président. wax naan nee nañ bu gagné Touba moom moom ce qui et certain moom mooy day laaj troisième mandat. xam nga ñoom loolu waxi politicien la rek naan ay bu la bu mu gagné ak waxoon nañ ñoom local yi woon nañ mooy deuxième tour Macky Sall gagné am 38 départements. non am na mais non parce que dañu xool chiffre yi localité yi bu doon mooy présidentielle Macky Sall jàll na au premier tour. élection mais il faut ñuy wax nit ñi on les donne la la bonne information locales yi sur quarante quarante six départements tu gagnes les trente huit sur cinq cent cinquante sept collectivités tu gagnes quatre cent et quelques mais lan lañ bëggati ñeneen ñi amaana say nit la ñu woon sax ñoo demoon ay liste ñëwaat lu ci mel ni Kolda avec Mamboy jaaw kon kay la lañ bëggati. Euh, mais tamit dafa mel ni ñu investir euh, ci. département bi euh, choix boo xam ne ni euh, ñi ngi naan euh, ñaar ñoom ñoo tax ñu xaw a am tuuti yaakaar ne danañu danañu kii waaye ñi naan sax ki nga xam ne moom la ñu investir def ko tête ni nekkoon na fi député boo xam ne nii du teg tànkam assemblée loolu noo ko jàngatee yow. bon loolu moom xam naa ne li ma lay wax gémmuñ guy naaj di wax jaam na sëñ Galas Kaltoom di sama sëriñ. ndax man sama wàllu kër yaay waa kër alaaji baara lañ sama yaay alaaji baara ko njëkk a yóbbu màkk kon kooku moom bu ñu bokkutoon fu ñu àndee sax xam naa ne bu ñëwoon ni ma moo wool woon ni ma kaay jàppale dama koy jàppale ndax am na leneen luy lu njëkk di ko ñaanal nga xam 2012 li waa ji naan ñamoon nañ ko mu neex ñamaat ko yàlla na yàlla na ren dàq daaw bon ñiy wax loolu nag mooy man li may wax mooy dañoo xamul li ñuy wax naxit ay du teg tànkam assemblée loolu du wax parce que 2012 ak léegi yàggul sëñ Galas doon na fi député cinq ans tey tëdd liste 2012 ba porté liste la woon na moom Macky Sall la woon Macky la gëmoon muy porté liste actuellement nii nag c'est sëñ Galas acteur politique lañ investir donc mun na am différence sëñ Galas bii nii sëñ Galas boo xamante ni ku xool sëñ Galas de à partir de 2017 nga xam ni dafay intégré politique Touba di politique dem ci terrain bi di di jàppale. 2012 nag ab sëriñ bu doon jàppale Macky Sall la woon amaana ñi ñoo ko ñëwoon kaay porteel ci suñu liste peut-être am na ci yu bëri yoo xamante ni waxtaanu biir la man jot naa jox waxtaan lu bëri neexu ko woon mais dañ doon jàpp léegi nag c'est l'acteur politique Serigne Gallas Kaltom bu ñëw dugg wàcc ci terrain bi campagne dëkk Touba am fi cër parce que kuy sa waajur wu góor ji Baara am nga fi cër de di def jëf fi def lu baax lu ne donc nag c'est un bon profil ñoo ngi koy ñaanal. yan bi yàlla na oyof yàlla may ko ndam ci élection yi mu jëm di waxit ah, sunu jigéen sunu xarit Daba Diouf di moom it jigéen ju baax Mbacké mu di candidate bu Mbacké commune bu di jàmbaar it ci parti bi yàlla may ko ndam ndax it ñoom département benn la en tout cas daal bu ñu xoolee en terme de profil nous avons de bons profile du ma ne on a les mais nous avons de bons profils ndax it ku ràcc jëmale sa kanam mu dellu man du ma ma nii du ma du ma koo xam ne damay yàq opposition bi donc on a de bon profils daal te am nañ yaakaar na it ñoo ngi ci terrain bi. Euh, ñu gis ne maanaam diggante Touba ak Mbacké euh, ci législative yi dafa bëri ñoo xam ni maanaam danoo daw yekk si li nu am lu ci bëri def fi seen i moyens ñii di ay directeurs généraux lan ñii nga xam ne ay euh, ministre sax yoo xam ne ni maanaam dëkk nekkuñu ci localité bi dañu fi bokk rek en tant que talibé mais teewul dañ fi bëgg a créer seen i base Euh, ba ñu neex sax yoo yow mi sax ñu wax ñi ci booyu Félix Dione yi ci nga bokk euh, Pape Modou Fall gis nañ la bërki démb tamit euh, il est c'est vrai qu'il est de Diourbel mais Mbàkke sax meeting na fi ni loolu noonu ñoom ñuy def noonu lu leen sant la wala boog dañu am lan lu ñu fiy wut si. bon tout d'abord damay nuyu au passage le ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome di la wax ne an ministre de l'intérieur am fi booy. xam nga nag ministre de l'intérieur nag quoi non non non non non ñoom ñooy opposition bi ñooy yàq xam fi mu toll nii ñoom jàpp nañ ni ku ne ni ñu ngi koy jéem a jiiñ xam lu waral ba am na fi ay boy am na ñu fa dem photo moom publier ko fi ñooñu ay boyam lan waaw waaw mais ñaata nit ñooy dem bureau ministre de l'intérieur recevoir la nga photo ak moom bëri na man xam naa kilifa yu bëri ñu ngi fay dem ñu photo ak moom parce que ministre de l'intérieur Sénégal gépp la opposition comme pouvoir léegi nag au delà de euh, casquette ministre de l' intérieur bi bu ko neexee moom mun day jàppale son excellence xam nga loolu loolu lépp day wane bon foi am wane ni carrément euh, euh, liggéeyu ministère de l' intérieur bokkut ak casquette politique donte moom fësalul fenn ni day politique mais am na droit nag ay xaritam. wala moom moo indi fësal gi nag. déedéet déedéet fësalul xam nga xam nga déedéet déedéet xam non non. loolu boo ko defee da ngay sa bopp. déedéet xam déedéet mun déedéet loolu nag sii Sénégal la il faut nag ñu nangu kenn mënut bëgg ginaar di bañ nenam ministre de l'intérieur day toog conseil des ministres président Macky Sall lay président am ku mu neex ku mu naqari bu sañoon luy may ndam président ci lay nekk ci li kàttanam moom moom moom moom Antoine nit la comme nit ñëpp am na droit soutenir léegi nag au delà de ça il est le ministre de l'intérieur loolu liggéeyu réew mi la. te te ci dëkk bi sax di ko soutenir. ministre ci dëkk bi dafay dëkk am fi kër am fi léppam kon kay loolu du dara tamit léegi par exemple yow bu dee xam nga ko bu yàgg. ministre de l'intérieur euh, de la sous magistrat bu nekkoon Diourbel ñi ko xam bu daa am nañ droit dem ci moom ni ko jàppale ma ci dara lu mu ci mën mu jàppale leen ci dara loolu kay loolu moom gisuma lu ci ñaaw nag gisuma lu ci bon ndax it keneen ku mu dooroon def. booyam yi nga bokk wala. non man du ma booyam man am ah, ministre de l'intérieur sama xar sama grand la sama mag la sama xarit la maa ngi koy nuyu au passage di ko ñaanal yan bi yàlla na oyof. élection yi di ko ñaanal li mu organiser ko ci jàmm ak salaam ñu ñu dem ci jàmm comme locale yi ni mu ko organiser woon yàlla may ko ci ndam ndam li nag mooy bu lépp amee ci jàmm benn manquement bañ a am mooy moom am na ci ndam ci poste ministre de l' intérieur léegi nag Macky Sall amee ndamit am na ndam loolu la rek. noonu la rek te ñoom ñeneen yeneen directeurs yi tamit di ñëw fii tamit. non yeneen directeurs xam nga nag bu ñu waxee euh, comme Pape Modou Fall Pape Modou l' emploi mooy ma koy nuyu Pape Modou ñu bëri dañoo xamul ni moom dafa yor parti parti la yor muy dëgg moo wóor donc comme ni yeneen. Euh, comment dire ñi mouvance présidentielle ñi bokk ci coalition bi di demee ci yeneen dëkk yi di fa meeting noonu la amee droit sillonner Dakar Sénégal gépp ni muy meetingee fii. kon partem day lancer. waaw non non ci mouvance présidentielle la bokk. yow day lancer wala partem. non partem la amoon bu yàgg ba bokk ci donc ci coalition bi la bokk. coalition bi bokk ci tax coali président Macky Sall cëral ko def ko directeur de l'emploi léegi nag am na droit. bu élection jàppee ñu xam ni dëkk yi kat xaw naa am nangam métti tuuti lu mel ni Touba. mu am fi ay nitam ñu koy jàppale mu ñëw fi gën leen a dooleel gën fi gën leen a jàppale tamit ci élection yi ndax it loolu tamit instant yi loolu lañ bëgg kuy dolli comme ni ko Samuel Sarr defee ni ko keneen keneen defee parce que seen Touba day bastion boo xam ne électorat bi dafa bari ku ci ne mën ngaa jël sa wàll ta du jeex. d'accord euh, mbokk yi Thiathio euh, tey dëkk bi nga xam ne moom mooy ci ñaari fan yi yëngu na lool opposition bi yëngal na leen bu baax dafa mel ni tiital na leen de rawatina Ousmane Sonko mi fi ne jiwux yegsi bi nga xam ne def na benn caravane boo xam ne nii diggante di euh, onze heures ba dix neuf heures ba vingt maanaam euh, doy na waar daal loolu tiitalu leen. bon xam nga nag man siiti yaakaar naa ne ñun suñu liggéey ñun lañ lañ lañ baaxoo di wax mais pas lu nit def loolu nag c'est normal période campagne électorale lañ nekk Ousmane Sonko bu ñëwee Touba war na fi ñëw parce que Touba du zone bu ñu tëjal kenn ñëw nag campagne ay nitam wuy si niñ ñu ne bu ñu génnee suñuy nitay ñëw wuy si ñu léegi nag ndax am na résultat final au soit soir du 31 ci lañ ko mën a xam. waaw xam ngeen nit ñaa ngi di nax tamit xam ngeen ni nit ñaa ngi leen di nax xam ngeen ni nit ñi yéen a ngi leen di jox xaalis teewul ñu ngi génn di ànd ak yeneen leader di ah, campagne ak ñoom. déet siit nag man gis gisuma fi nit ku ñu jox xaalis. non non ñun moom li ñuy def mooy dugg ci kër yi. waxtaan ak ñoom ci njëkk teraanga nga dugg kër ñu mer ni la dund gi dafa cher ngal ko ni ko dund gi cher gi du président na 2012 ba 2019 dara yokkul ci réew mi lépp wàcc 2012 ba 2019 amul mënoo maa ne lii yokk kon bu dee ki am ki mën a téye réew mi sept en trois ans ay affaire ay mbir inflation mën a am nga war a xam ne kooku du ci moom adduna bi moo demee noonu bi yëpp nekk ci crise ñoo ngi waxtaan ak ñi ci njëkk teraanga xamal leen ni li ñu war li wër réew mi li jig Sénégal ci stabilité ak jàmm ak développement mooy Sénégal am major président Macky am majorité à l'Assemblée nationale ñoo ngi ciy woo ñëpp ñu jàppale ñu joxuñ nag kenn xaalis bu dee dafa am ñuy joxe xaalis man ne gisaguma responsable bu jox nit xaalis. yónniwul la fenn nga joxe fa. man ne musuma joxe xaalis. maire bi yónniwul la ngay joxe ci xaalis bi financement loolu ay loolu yàgg na am ci loolu yàgg na am defu ko. financement rawatina période campagne. non non maire financement loolu lu mu ne kon na daan def la ay dat la rek dafa yor calendrier yor ay datam bu ci tombeel mu war a def fenn da koy def amul campagne amul sans campagne donc moom yàgg na def ay financement am ku sa projet génn bu dee période bii la tombeel dañuy dem jox la ko ngeen liggéey amul fay def seen kees après dimbalante loolu moom ku jigéen yàgg nañ koo liggéey ak moom donc te gis naa ne noonu la ñëpp dem di liggéey mais gisuma kenn ku jox xaalis amul achat de conscience na it loolu la man gëwuma politique boobu te amul sax républicain du gëm loolu Macky Sall def loolu yow doo def achat de conscience mais Yaakaar daal fii ci département ma la gisee nga def koom danaa danaa ànd danaa la filmer moom nga def ko bu ma ci tegee sama bët danaa fi ne li def mooy dem wàcc ci askan wi. porte à gis nga ma nii ci terrain bi lañ jógee dugg ci kër yi waxtaan ak nit ñi ci njëkk ak teranga ñu ñu Macky Sall am ndam na Macky Sall nag li ma ci bëgg wax waa département mooy Macky Sall moom day am majorité hmm. scientifiquement day am majorité kum neex bu la neex après nañ ko vaar nañ denc loolu ñu dag ko scientifiquement amul lu koy téye mun a am majorité assemblée léegi nag mu am ko ci département bi bokk ci bokk nañ ci la ñuy xool kon nag ñoo ngi ñaan waa département Mbacké pour une fois nañ ci bokk ndax nag yu moom tôt ou tard day jàll comme que euh, pousse mu dem pousse mu dem teg ci sa loxo rek yaa dara ñoo ngi leen di ñaan ñu teg ci seen loxo mbokk yi sunu gan xam ngeen ko mi ngi noonu muy Thiathio mbay moo nekkoon sunu gan ci seen émission euh, ganu campagne élection législative deux mille vingt deux xam naa ci tëjte bi moom mooy stratégie yi ngeen fas yéene lal euh, ci ci fan euh, ayu bés bi des. bon stratégie moom fi mu toll nii. ndax ndax boo xoolee non non mën nañu maye tuuti ndax opposition commencé nañoo tiit na fi mu dool ñi ngi tuumaal nit ñi naan dañ leen a jënd ak di traité na nga xam loolu tamit muy wax ju ñaaw ma koy dénoncé ndax bu dee nit ki bu ànd yow nit ku baax la bu la bàyyi bu mu tax nga naan nit ku bon la politique jarul lool ndax fu ne fu waay nekk tey bu subaa mën ngaa nekk feneen jarul wax ju ñaaw jarul jiñ dara surtout terme bi may dégg surtout nag ci dëkk bu sell bi ñu naan Touba ay nit di ko wax de jour à niwi naan góor jigéen góor jigéen góor jigéen ñu borom ñaari tur yi man sax maa ngi jégalu ci baat bi loolu dafa ñaaw nañ bàyyi wax yooyu bu dee bu nit ànd ak yow nit ku baax la ñun ñëpp ay jullit lañ ay taalibe lañ sëriñ bi lañ yaakaar politique nag ku ne am nga droit far fa la neex nañ bàyyi kenn ku ne mu far fu neex bu élection moo ñuy départagé au soir du 31 on va tourner cette page ñu demaat ci leneen kon jarul di tax sa kenn di góor jigéen wala naan borom ñaari tur wala naan ko bon la. nañ campagne ci jàmm salaam yéenante jàmm bu ñu rombantee saafante nuyonte ku ne dem baab say nit politique loolu la na ku ne waxtaan ñi nga mën a waxtaanal mbir mi munta leer feeg la 31 jotut on va faire nag le maximum les responsables sont sur le terrain ils abattent un travail sans relâche de jour comme de nuit ba léegi nit ñaa ngi ci terrain bi di liggéey na ku ne liggéey ñàkk daal gëm naan du réer le 31 nag ki man gagné après ñii ñi félicité ñu on tourne la page ndax ñun moom quoi qu'il en soit nous nous qui sommes avec benn Bokar nous nous aurons une voiture à une victoire à fêter parce que le président aura une majorité majorité bi nag victoire bi nag ndax dañuy fêter victoire bi suñu département am déet loolu nag mi ngi ci loxo yàlla ñoo ngi ñaan daal waa département bi yëpp ñu xam ni bañ bi doy jot doy na bañ bi bañ ngeen 12 ans teewul waajaa ngi gouverner confortablement donc jaratul bañ nañ xam ni moo fi nekk tey def na fi lu tax ñu jàppale ko. may ko assise def na fi investir na fi def na fi il a beaucoup fait pour ce département le président en a beaucoup fait sii di mënoo ñëw Touba ak Mbacké te gisoo lu Macky Sall liggéey ci dëkk bi. mënoo ñëw Touba neel. Mbacké kay bu leen ko tudd moom non gis. non récemment rek ngeen di wax stade boo xam ne deux ans en construction. ñoo loolu ñoo on on lance un appel au ministre pour travail euh, liggéeyu stade bi travaux yi gën a gaaw mais boo xoolee Mbacké tali yi commencé na. vieille doléance Daaru Salaam vieille doléance la woon gis nga récemment le DG Kalaba bi mu jëlee maire bi rek le ministre Samba Ndiobène que je salue de au passage ñëw na fi. sa chantier yu ay dégâts en plus mi ngi ñëw nu gars yi eh, gis nañ ko ñanga ci encore defar na ay tali ndox maa ngi dugg ci kaw eh, kër nit ñi di duggaat ci kii bi xam naa loolu beneen jotaay lay laajaat pour ñu gën cee mën a waxtaan. Ah, Sidi Sidi yéen journaliste yi nag. yéen day am am ñun gis nañ ko. da ngeen a commencé di far mais sii di nag nañuy waxante dëgg. macha allah tali moom dafa war a am Mbàkke caaco quoi qu'on puisse dire Mbàkke ngi am tali bu yaatu mais dama ne travaux yooyu noonu dafa créer des dégâts nangu ko. waaw mais sii di xamante ne lan ngeen bëgg lan ngeen war a wax. da ngeen naan lii kat fii mu yam bu dolli ko am ay avancé ñu ñu canaliser defaat système de canalisation loolu ngeen war a wax loolu je suis d'accord nañ canaliser dëkk bi yëpp ndax it Mbàkke rafet. jekk suñ suñ mbàkke la suñ fierté la tax ñoo amee gan ñu fiy ñëw waaye bu ñu tax ñu ni tali buy créer dégâts kenn defaru tali pour créer dégâts mais mais defaruñ tali pour kay xamal maanaam objectif bi ngay wax li tax ñuy defar tali pour askan wi jariñu ci la mais pa pour yàqal askan wi kon buñ ne buñ ne amul canalisation wala canalisation bi jaarul yoon nañ ñaan ñu defaraat ko ñu mu gën a jag mais ku xool léegi xam ni carrément dëkk bi mi ngi commencé am beneen visage xar kanam loolu nag buñ ko yàq. merci beaucoup euh, Thiathio euh, kàddu yi ngay tëjee lan la. bon di la sant di sant waa 28 pro yéen ñu may opportunité ñu gën a waxaat askan wi ndax it ki la offrir antenne booy booy jàllee sa message amoo loo ko fayee yéen presse bi yëpp ñoo ngi leen di sant de maa ngi profité ci vingt 28 pro. di ñaanal ñëpp Sénégal jàmm di ñaan ñëwet bu barkeel di di di masawu tamit ñi ndox mi xaw a nangu seen kër yi naxit metti na ñaan ñaan gu li waa olof naan ñaan gu nangoo solal boroom ñoo ñaan ndox sëñ bi wàcceelu kaamil ñu gis jour ba ñu wàccee kaamil na ndox mi taw boobu ba léegi taw bi arrêté wut ñoo ngi ñaan yàlla nañu yàlla may nawet bu barkeel di ñaan jàmm ci réew mi ndax jàmm ci la lépp xaj ñun ñëpp nañ jàmmoo xam ni daal sénégalais ñun Sénégal xamuñ lu dul jàmm xamuñ fitna xamuñ ay xamuñ coow nañ campagne ci jàmm élection yi jeex ci jàmm benn Bokk Yaakaar gañe ci jàmm ñu gañe département bi ci jàmm teg ko ci loxol Macky Sall ñëpp am ndam ñoo ngi ñaanal ñëpp di wax nii nag kàddu yi lépp lu ci ñagas ñoo ngi koy jégalu te xam ne ay ndaw lañ la yuy door lépp lu ci jag rek ñu xam nii ñaan ñaan la rek ñaan guñ saañ saxoo ak it dénk suñu bopp kilifa yi ñoo ngi lay sant bu wér wér ci opportunité bi. jërëjëf mbokk yi jërë ngeen jëf yéen tamit ñu ni seetaan mbokk yi Thiathio Mbaye xam ngeen moo nekkoon sunu gan ci seen site 28 pro ci émission bi nga xam ne moom mooy ganu campagne élection législative. U 2022 kon ba le 31 juillet incha allah comme ni ñu ko waxee ñuy xool fu wàndi di mujjee kii gëtam maa ngi àndoon nag euh, ci euh, émission bi suma caméraman Omar Sarr euh, di ànd ak Bécaye ci réalisation bi di leen dig daje ci yeneen jotaay yi ni mel fii ay bés ci élection législative yi jër ngeen jëf.